fi ci santu toa xew-xew bu doy war mo fi amati li fi daan am wa faral di fi am ci virage bi nga xamanteni mo jëm direction djouti ba tay nak benn sok bu metti lañ fi fekk benn auto ñi naan amna frein ñi naan amul frein mu mbëkkante fek benn saretu mbam askan bepp genn ay bakkan yagu fe touru xana ñu leen topal information yi laaj ñi nga xamanteni ño fekke mbiri mbir naka la demee. soxna ci ma ngi lay nuyu. ma ngi lay fay. yow tour bi naka la. Mami li xew seen koñ bi doyna war melni accident da fi accident dafay am chaque jour nii la ñuy dawee si kaw tali bi fii accident amoon na fi sama doom lañ fi rey ko am ñetti at noonu lañ négocier ñu baale bàyyi noonu mu dañ chaque jour chauffeur yi nii lañ jaare jaaree bu ñuy wax ak ñoom sax dañuy dañuy jànni mm-hmm. oto bi amul frein amul kayit chauffeur bi dafa màndi chaque jour amul frein amul kayit amul frein amul kayit da pare daa biñ ko wàccee mënul taxaw da doon tettare nit ñee ko tey jàllale ko mu daw daa màndi ba ne tat mais yow dañ fi reyoon ah fii waaw ñetti at la am ñetti at ñetti at ku jigéen fii mel ni fii nii euh, chaque jour day faral di am soog seen virage bi. fii fi ngeen dëkkee parce que duñ fi dawal ndànk. Hmm. nu leen neex lañ fiy dawalee ñun fii la ñuy kant tey bu nekkoon mbaam bi safar bi si biir kër gi la jëm si woon. da hmm? doon oto bi si biir kër gi la jëm si woon dajeeg mbaam bi mbaam bi taxaw ñaari nit a yéegoon si kaw mbaam mi. chaque jour nii lañ fi def <laughs> ah duñ fi dawal ndànk fii tali bi dawu ba xaj na fi ñun fii lañ dëkk fi la suñu doom yi mën a toog fo ah waaye chaque jour fii lañ fiy dawalee nu mu leen neexee bu buñ toogee fii suñu fit du dal ñu nekkee si biir kër gi suñu fit du dal fu suñu doom yi nekk ñu ngi koy bu buñ tukkee sa suñu xel du dal amuñu benn jàmm amuñu benn salaam ndax safa te avion yi mooy yi eb yi ñoo fi ñoo ko rey xale bi si sensi la dee ah. sëñ bi maa ngi lay nuyu waxal ak man sëñ maa ngi lay ah, maa ngi lay fay tur bi naka la Moussa Kane Moussa Kane bi doy ca dépp ca suba. ñëpp gis na bi oto bi ñëw xel yi mu doon daw. bi mu ñëwee bu du woon ak saretam mbaam bi mu daal kon ci oto kër gi la jëm. ñu ñëpp dañ daw génn ba bi ñu ñëwee ak si chauffeur bi sama doom moo ko poñee. bi mu ko poñee man maa ko ne bàyyi ko. man wóor ma ni ab apprenti la ko téye woon bu ñëwee amul permis. keneen ki ci daw dugg ci biir tëj bunt bi. Cheikh Fall mi moom oto bi ba mu ñëwee la toog gis li mu def directement brigade.

nu sañ ci lii la ñu tey tali bii nag mu nekk tali boo xamante ni tali bu dangereuse la euh, ay bakkan yàgg fi tuuru ay nit yàgg fi dee nee nañu nag euh, or nañ police mais gendarmerie ñëwaguñ lu ci munte am daal dinañ leen toppal information bi mais li lu doy waar la lu métti la askan bi lu ñuy méttitlu la lu ci munti am rek dinañ leen toppal information bi